waaw euh, tey dañu am mbégte euh, ñëw fii ci port pour réceptionner li nga xamante ne nii mooy bato bi ñu doon xaar bato bi jógee Hollande ñi ko andi mooy les importateurs sénégalais ñoo xam ne ñett lañu. waaye di ngeen ma may ma sant gërëm ki nga xamante ne nii mooy directeur général du port ki nga xamante ne nii jël na en priorité li nga xamante ne nii mooy bato bi pour que bu ñëwee ñu traité ko et ñu accélérer rythme bi nga xamante ne ni moom mooy le rythme de chargement pour que lii nga xamante ne ni mooy camions yi fi nekk ñu mën a dugg à l'intérieur du pays pour ñu mën a approvisionner le le marché tey boo xoolee tey fii nii euh, moom ak ay agent am wax dëgg fa yàlla surtout déplacement am wane na ki en haut lieu au niveau présidentiel jusqu'au niveau du gouvernement la question de la disponibilité du produit mooy li nga xamante ne ni moom mooy oignon bi mu accessible ci sénégalais jël nañ ko en charge pour que sénégalais yi wax dëgg fa yàlla li nga xamante ne ni mooy cherté bi ñu noté ci prix bi mu mun a wàññeeku parce que lii nga xamante ne ni moom mooy soble lu lu koy réguler moom mooy disponibilité bu bëree ci marché bi comme c'est produit périssable njëg li day wàcc te bateau yi bu ñu ñëwee bu ñu yàggee ci ci ci ci géej gi loolu day allonger euh, li nga xamante ne ni moom mooy la période de tension moo tax ubbil nañ ko couloir traité ko en priorité te yeneen bateau yi di ñëw itam xamal na ma ni ki dinañ ko traité en priorité pour que bu mu yàgg ci port bi mu mun a dem euh, sénégalais yi mun koo jëfandikoo. waaw bato bi lu mu am ci biir mooy 7000 tonnes ki nga xamante ne nii mooy Jibi Mbuub importateur sénégalais am na ci 128 tonnes. ki nga xamante ne nii moom mooy Xaadim euh, Fall am na ci cinquante cinq tonnes ki nga xamante ne nii mooy Jiili Fall am na ci dix huit ton loolu yëpp boo ko boolee wax dëgg fa yàlla war na mën a permettre pour semaine bii nii ñu mën a approvisionner correctement le marché mais surtou jouer ci njëg li pour mu wàcc. li nga ma mën a wax tamit mooy ministre du commerce euh, jël na ndogal pour bloquer prix yi parce que ci wàllu euh, soble dañu nekkoon ci structure prix conseillé maanaam tënkuñu euh, commerçant yi fenn mais dañuy jël li nga xamante ne ni moom mooy charge yi nga xamante ne ni importateur bi daf koo supporter ci jënd njëg soble bi à partir de la Hollande li nga xamante ne ni moom mooy charge yi nga xamante ne ci transport bi la nekk ak frais portuaires yi pour que après derrière ñu mun a appliquer benn prix boo xamante ne ni mënuñu koo dépasser waaye boo jëlee charge yëpp boo ko xaymaa ci euh, fi nga xamante ne ni mooy grossiste bi mën na koo dikkee 16000 demi grossiste bi mën na koo dikkee 16500 17000 daal jàpp nañ ni mënu koo dépasser ci li nga xamante ne ni moom mooy au niveau des détails. te tey euh, fii euh, fi ñu taxaw ci mool trois mool boo xam ne président Macky Sall moo ko réalisé woon ñu réceptionné ko daaw le 25 octobre fii ñu ngi am gaal goo xam ne démb la ñëw vingt une heure cinq mu dugg suñu ndoxu géej vingt pardon vingt heure quarante cinq vingt une mu costé mi ngi yeb sept mille tonnes d'oignon am na ki wax léegi à peu près six mille palettes parce que benn palette environ une tonne deux cent la dañu organiser wu de telle sorte que amul benn bateau tey bu yeb ceeb blé suukar diwlin ak ñoom seen boo xam ne mi ngi ci géej gi te mënul costé dañu am ay quai yoo xam ne dañ ko préparer mais dañu doon euh, tàggat suñu bopp ci wàllu port parce que xamoon nañ ne campagne importation oignon day ñëw depuis trois semaines ñu ngi doon xaar navi navire yi ñu ñëw navire yi ñëw nañu le 21 août donc bii ñëw am na beneen navire bii ñëw Ivar Reefer bi yëpp aussi 8000 tonnes d'oignon li mel ni nag su port jàppee manutentionnaires yi ñoo ci jàpp Istamco moo xam ne mooy décharger marchandise bi dafa investir ci ay engins yoo xam ne dañu adapté wu ci wàllu manutention portuaire ci espace yu xaw a xat gis ngeen ko léegi ci ci ci opération yi mais aussi dockers yi dañu organiser wu ci ay équipe pour mën a remplir les cales loolu moo tax ni tey bateau bu mel nii avant fukki fan ba fukki fan ak juróom la doon def port pour mu génn ci quai yi à peu près deux mois wala ñetti weer la doon def géej pour mu am quai pour mu costé kii dafa ñëw taxawul fenn costé mais yaakaar nañ ne altine wala mardi bii dina jeex bii ñëw xam nañu fu mu war a jëm quai 14 lay dem mooy navire bi war a ñëw lii mooy li ñu préparé ak le ministère du commerce et les autorités pour mën a porter yenu ci anam gu am solo campagne bii oignon bii démarré

conteneurs yi ak cargaison conventionnelle yi pour que économie pays bi war a mën a yàmb ministère du commerce dina xool stock yi ñëw nii naka la ko war a defee pour que stock yi war a dem ci zone yoo xam ne se les zone prioritaires pour rassurer le pays lii a amoon li may wax di am mbégte bu baax a baax ci lii port di def depuis dix mois di yëpp di yanu activité économique réew mi mu bañ a am gàllankoor ci population yi